salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar leen balu xaq di leen baal ñu ñaan borom subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñu ñëw ci masala isnayn wa sabuun ba tey ñu ngi ci ñi tere ci ki am janaba mu ne bokk na ci li nga xam ne mooy dugg jàkka moo tax mu ne yamnaul junubu من دخول المسجد سواء كان جامعا أو غيره ولو كان الداخل مجتازا من باب إلى آخر فيحرم عليه ذلك ويجوز للجنب الذي فرضه التيمم لمرض أو لسفر لم يجد فيه ماء أن يدخله بالتيمم للصلاة والمبيت فيه إن اضطر إلى ذلك كما يجوز للصحيح الحاضر الفاقد للماء أن يدخله إن كان الماء داخله بكنا دخول الكافر المسجد يمنع الكافر من دخول المسجد وإن أذن له مسلم إلا لضرورة ضرورة عمل كان يكون أتقن من المسلم أو أقل سيدر ستي متولوك numéro 72 ne yi ñu tere ku am janaaba bokk na ci yi ñu tere ki am janaaba dugg jàkk waaye ki am janaba waxtu julli jot te amul ndox moomu sangoo day tiim yéene ci janaba su boobaa mën na ciy dugg jàkk tere nañu it yéefar muy dugg ci jàkka doonte jullit yi ñoo ko ko may ba mu des ngàntu lu mel ni mu am fa liggéey boo xam ni moom rek moo ko man ñu jàng mooy fiqh al ibadat yàlla mooy ki xam lépp lu jub bu <clears throat> doon tënk darse bi tey daf ñuy jàngal ne ki nga xam ne dafa war a sangu farata am janaaba war a sangu farata kooku dafa xaram ci moom mu dugg ci biir jàkk bu ñee jàkk nag jàkk ak jumaa ci yam moo xam daa jaar ci bunt wala mu jaar ci fananteer yépp dañ ko tere ki nga xamante ne nag dafa war a sangu farata te amul ndox mu mu sangoo xam tiim mooy farataam wala mu doon koo xam daa am feebaru laal ndox wala mu nekk ci tukki boo xam ne gisul ndox bu mu sangoo boobaa day tiim bu tiimee tiim booba mën na cee dugg ci biir jàkka tiim boobu it mën na cee fanaan ci biir jàkka it loolu maye nañ ko comme ni nga xamante ni noonu la dagane ki nga xam ne dafa amul ndox te tukkiwul mu tiim julli noonu tamit la mel rek bokk na ci it euh, yéeféer dañoo tere mu dugg ci jàkk loolu sharia du ko tere lu mat a bàyyi xel la mbokk yi islaam dafa ter yéeféer mooy dugg jàkk إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا depuis ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ubbee Makka ca la yàlla jox ndigal yonent bi képp ku yéefar bu mu jegeete kaaba gi kaaba gi mooy baytullahil xaram mooy masjidul xaram boobu it ah, gis nga ibra boobu day làmb mbooleem fuy néegu yàlla yàlla rek kooku ci day ciy duggaale yéefar amul droit di ca dugg lu ni dafa am lu ñu bëgg liggéey ci jàkk ji te moom rek moo ko man su boobaa ngant la pour mu dugg fa waaw dafa wala li nga xamante ni moom lañuy liggéey ci jàkk ji ñi koy ñi koy war ñi ko mën a liggéey lañ cay laaj jàkk ji amu ko léegi yéeféer bi ki nga xam di jullit moom am ca prix boo xam mooy prix bi gën woyof bi xam ne jàkk ji mën nañ koo fay boobaa it sharia may na mu dugg ci jàkk ji liggéey loolu bu lool loolu may autorité ak kilifaak ku mu ci manti doon lislaam dafa tere mu dugg ci jàkk gan lu mu foor foor foor foor bu dee du jullit doo ko dalal ci jàkk même bu dee ñëw pour visiter jàkk ji war leen dimbali sax day yabal eh, ñoo xamante ni ñooy ay expert ñëw xoolal ko waaye moom gan gi day dem ci kër ga wala mu dem rek waaye néegu yàlla moom lislaam dafa tere ñu dol dalal ci yéefér lu doon ngànt yi nga xam ne moom la ñu jàngale loolu mooy dars te yal na yàlla defal dégg ak topp ku ci am na muy laaj mën na tàpp ci Ahmadiyya TV wala ah, wala Aynu Maadi buñ ko xamee dañ ko tontu ci kàttanu yàlla subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa